asalaamaaleykum mbokk téléspectateur mbokki internet yi nga xamante ni ñoo ñuy bàyyi xel sur la TMS TV yéen a ngi seetaan euh, seen émission lii di Actunet mu nekk nag émission bu faax fii ci la TMS TV mbokki internet yi laata ñuy tàmbali seen émission lii di lire commentaire dañuy daal di euh, nuyu euh, ki nga xamante ni muy bàyyi sëriñ si di Alaaji Caano Moule Sow nekk the king of the kings di bàyyi sëriñ si nekk le broder dum mu nekk itam li nga xamante ni di détecteur des des mauvais esprits donc mu nekk li nga xamante ni wàccuwaayam la waaye itam dañuy daal di euh, tënk nuyu gi euh, ci ñi nga xamante ni moo di groupe la TMS TV waaye itam mbokk internet yi duñu leen fàtte yéen mi nga xamante ni saa su ne yéen a ñuy béggee duñu seetaan di ñu encouragé euh, di seetaan sur la TMS TV mu nekk nag seen wàccuwaay waaye mbokki internet yi tey dañ leen tànn nag vidéo yi nga xamante ni vidéo yi doy waar lay doon waaye itam dina am ay commentaires yu am solo benn baa ngi porté rek ci boo seetaanee euh, jinne ji gis ko ni mu def euh, xale bi donc ci boobule vidéo ak yeneen vidéo yi nga xamante ni dañ koy liir euh, daal di lire seen i commentaire mbokki internet yi ñu daal di tàmbali li nga xamante ni moo di liggéey bi waaye nag ñooy gis ci image yi ñoo ngi gis nag image yi doy waax ci video boobu waaye itam dinañ daal di xuus mbay ñu dem ci euh, benn internaute benn internaute bi nga xamante ni moom itam daal dina yëkkati kàddu yi am solo kàddu yi ci mel ni macha allah Thierno Moule Sow liggéey bi rafet na trop yàlla na la yàlla guddal say fan kooku di Adama moom itam. yi daal dina yëkkati kàddu yu am solo kàddu yi nga xamante ni daal di nekk benn genre de remerciement waaye nag benn genre de d'encouragement euh, ci ki nga xamante ni mu di Alaaji Thierno Moule Sow waaye itam mbay ñu daal di addu ñu daal di àddu demaat ci beneen internet ki nga xamante ni ñu di ko wee Abdallah Camara mu itam nee na macha allah Thierno Moule Sow suñu borom Euh, laa koy euh, delloo donc mu nekk li nga xamante ni lu am solo la mbokki internet yi dañuy faral di seetaan Alaaji Thierno mule Sow daal di am ay jàngat yu ci vidéo yooyu waaye daal di am jàngat yi nga xamante ni moom la Alaaji Thierno Moule Sow daal di wax ndaxte moom léppam yàlla la léppam yonent la ndaxte moo ko daal di wax ba tax ni internet bile di Abdallah Camara daal dina koy confirmer daal dina koy relever itam waaye mu nekk lu am solo kàddu bu am solo solo ndaxte képp koo bàyyi bu bàyyi ko sa bopp ci yàlla delloo sa bopp ci yàlla foog naa ni doo mës daana donc mu nekk li nga xamante ni lu am solo la waaye ñu àddu ñu demaat ci beneen internet ko ci mel ni Serigne fàllu mbay moom itam euh, daal dina yëkkati kàddu yi am solo. kàddu yi ci mel ni li warul a jaaxal kenn ndax suñu borom li mu yor doy doyu ko dara ndaxte euh, ndaxte euh, euh, ndaxte dem ci beneen internet ko ci mel ni Serigne fàllu mbay moom itam yëkkati na kàddu yu am solo kàddu yi ci mel ni li warul leen jaaxal ndaxte suñu borom li mu yor euh, doyu ko dara te du jeexal mukk ku euh, yabu kuy euh, yabu di ko ñaanal ndax ta ku ñu demaat ci beneen internet ko ci mel ni Serigne fàllu mbay moom itam daal dina yëkkati ay kàddu yu am solo daal di naan li waru leen jaaxal ndax suñu borom li mu yor doyu ko dara te du jeexal mukk ku yeboo di ko ñaanal ndax taal bu yàlla taal la euh, soppul donc mu nekk li nga xamante ni itam lu am solo la mbokki internet yi ah, dañuy daal di faral di yëkkati kàddu am solo. kàddu yi nga xamante ni macha allah dañuy faral di gis euh, ci li nga xamante ni moo di Alaaji Thierno Moule Sow ci ci thérapie bu muy def daal di koy encouragé waaye itam daal di indi ay suggestion des fois daal di indi ay ay ay éclaircissement euh, maanaam ci li nga xamante ni moo di liggéey booba waaye nag confirmation yu set wicc ndaxte kenn melul ni Alaaji Thierno Moule Sow ndaxte taal bu yàlla tàll la bile internet daal dina koy wax kon daal dama ci daal di dellu ci euh, dama daal di dellu ci kàddoom boobu daal di naa taal bu yàlla taal la ndaxte Thierno Moule Sow taal bu yàlla tàll te loolu muy lu wér ndaxte yàlla may na ko kun may ko faye kun nekk na nit bi nga xamante ni euh, nee naa leen saa su ne tànneef la. Euh, ci euh, biir nit ñi donc nag mu nekk nag tànneefu yàlla donc dañuy sant yàlla gannaaw bu ñu mayee alaaji Thierno Moule Sow may ñu ki nga xamante ni moo yore solution des jinne nekk ki nga xamante ni moo yore solution des euh, dëmm donc mu nekk li nga xamante ni lu am solo la donc mbokk internet yi ñu daal di addu mbay indal ma beneen internet ñu daal di dem ci beneen internet ku ci mel ni na Sarr moom itam daal dina yëkkati ay kàddu yu am solo kàddu yu ci mel ni je son numéro c'est urgent donc mu nekk li nga xamante ni lu am solo la mbokki internet yi ndaxte lii dafa daal di am solo ndaxte saa su ne nit ñi dañuy soxla Alaaji Thierno Moule Sow ndaxte bàccin bu ko yàlla jagleel donc loolu dañu war a sant yàlla suñu borom bu baax a baax ndaxte du ñépp la yàlla may lii kon nag yàlla bu jëlee ki mel ni alaaji Thierno Moule Sow daal di def ci moom ay baatin daal di def ci moom li nga xamante ni mooy la lumière divine donc mu nekk li nga xamante ni ah euh, euh, euh, taneef la daal en fait taneef la te ngëneel la tamit ci askan wi ndaxte nekk na li nga xamante ni moom moo yore sur le jinne moo yore sur le dëmm donc mu nekk li nga xamante lu am solo la ba tax ni muy xettali doomi aadama yi ci wàllu mission bi ko yàlla jagleel te ba ñu ko benn yoon te dawul benn yoon donc ngàcce ngàllama alaaji Thierno Moule Sow ci njàmbaarte bi nga xamante ni yàlla may na ko ko donc ñu daal di xuus daal di dem ah ci beneen vidéo bi nga xamante ni daal dinay am euh, importance ci vidéo bi lee ñoo ngi gis nag euh, kii di Alaaji Thierno Moule Sow waaye mu am nag benn jigéen bi nga xamante ni moom itam daal dina possédé ay jinne ay jinne yu bono bon ay jinne satanique donc mu nekk li nga xamante ni lu am solo la ba tax ni euh, ñu ngi am comme titre ëppatalaw un jinne fait de grave révélation donc lii day daal di wone li nga xamante ni mooy jàngat bi nga xamante ni moom la alaaji ca alaaji Thierno Moule Sow daal di apportel askan wi ndaxte moom nekku fi lenn lu dul jàppale askan wi xeetali doomi aadama yi ci wàllum eh, jafe-jafe bi nga xamante ni ah, dañ koy am ci seen wàllum dund dañ koy am ci seen wàllum mélange dañ koy am ci seen wàllum Euh, wérgu yaram ci lépp li nga xamante ni tënk na mbirum àdduna rek euh, moom alaaji Thierno Moule Sow daal dinay am solution boobu ngàcce ngaalama alaaji Thierno Moule Sow donc ñu daal di xuus mbay ñu daal di demaat itam ci beneen internet ku ci mel ni Awa Ndaw moom itam daal dina yëkkati ay kaddu am solo kaddu yi ci mel ni ay sow boo fi nekkul woon uh, fu ñu jëm uh, ku si d'accord uh, bësal bleu donc mu nekk li nga xamante ni itam ah ay confirmation la ndaxte xam nañ ni ala alaaji Thierno Moule Sow bu fi nekkul mu ñaaw donc nag yàlla nangul loolu moo tax mu créé ku ci mel ni alaaji Thierno Moule Sow ndaxte jinne yi dañoo garaaw a garaaw jinne yekk dëmm yi dañoo garaaw a garaaw ndaxte ñoom euh, daanaka ñu leen mënal bëriwul ndaxte li nga xamante ne ay esprit maléfique la ñu ay esprit invisible la ñu kenn mënu leen gis donc ñoom seen foor loolu la donc ku am fort ku am ba dem ba di euh, jëflante ak ay jinne ak i dëmm donc mu nekk di di di di di songante ak ay dëmm ak i jinne donc kooku yàlla may na ko baatin may na ko baatin bu wér bu bu bi nga xamante ni kenn mënu koo weddi ah weddi gis bokku ci donc mu nekk li nga xamante ni ah, lu am solo la ba tax ni internet yi ñoom itam dañuy faral di indi ay confirmation ci wàllu bi nga xamante ni thérapie la waaye itam ci melukaan bu mu mel macha nga ce ngalaama ci xam-xam bi mu la may yàlla may bi mu la jagleel ah euh, saa su dañuy sant yàlla bu baax a baax ci loolu donc ñu àddu mbay ñu demaat ci beneen internet ku ci mel ni Fatima Guissé moom itam daal dina yëkkati kàddu yu am solo daal di naan j'arrive pas à y croire à y euh, yàlla nañu yàlla musal ci euh, jinn ak lépp lu bon allahu amin donc mu nekk li nga xamante ni itam yéene la ñaan la euh, jëmale ko ci bépp mbindeef waaye itam jëmmale ko ci ñëpp ak itam li nga xamante ni dafa dal di yéem ci moom daal dina koy relever dal di naan mënu koo gëm ndaxte nekk la li nga xamante ni ça dépasse de, de du naturel ça dépense euh, ça ça ça dépasse euh, euh, de de de de de l'œuvre humaine donc mu nekk li nga xamante ni ah lu extra ordinaire la ce qui dépasse de l'extra donc mu nekk li nga xamante ni yàlla moo ko ko jagleel donc mu nekk li nga xamante ni ñëpp war nañ ñaanal kii di alaaji Thierno Moule Sow ci yàlla lim ko may ci surlu bu mu ko may ah ak ci patience bi nga xamante ni daal di nooy am loolu ndaxte euh, ku am patience euh, foog naa euh, di di di jëflante ak i jinne ak i dëmm ah di xettali doomi aadama di leen ginne ci ay jafe-jafe ah, di di di di jàpp ay dëmm ay jinne di leen wax loo di leen duma di leen dóor di leen waxloo ba tax ba tax ni ñuy am ay révélation yu am solo yu ñu yëkkati ak i euh, jaar-jaar bi nga xamante ni jaar-jaar nañ ko euh, euh, diggante ak ñi nga xamante ni ñoom la ñuy daal di possédé moo xam góor la moo xam jigéen la wala xale la mbaa mag la donc mu nekk li nga xamante ni ay histoire yu am solo la donc mbokki internet yi ñu daal di àddu ñu daal di demaat ci benn internet ku ci mel ni Paco Euh, Diop donc moom itam nee na vraiment tu fais un bon boulot je suis tout te tes vidéos depuis Italie yàlla na la yàlla fay donc mu nekk li nga xamante ni itam mbokki internet yi ah lu am solo la ah vraiment euh, li nekk na li nga xamante ni. doonul gulet ci clinique médicale bu Alaaji Thierno Moule Sow dans la vie de tous les jours ñu ngi rencontré yi li mel ni ñu ngi rencontré li nga xamante ni itam ah ay histoire yu yéema yéema la ay affaires yu incroyable doo ko mos a gëm tant que tegoo ci bët wala nga ne ko jàkk euh, daal di koy gis donc doo ko mën a gëm boo déggee rek da ngay foog ne lii ay film la wala ay théâtre la mais une fois que ni nga ñëw fii ci clinique médical bu Alaaji Thierno Moule Sow di nga di am am lu la yéem daal dina am lu la impressionné vivement donc mu nekk lu am solo donc ñu àddu euh, mbokki internet yi daal di dem ku ci mel ni prise yi cent pour cent moom itam nee na euh, baax nga si société bi ku ci ànd bësal j'aime donc mu nekk li nga xamante ni ba tey ah mbokki internet yi ah, même chose la même remarque la ci internet yi ndaxte ñoom ñoom itam ku baax ci ñoom la ñuy wër ndaxte ku ci nekk sa intérêt bopp ngay xool ndaxte ku toog nga gis li la yéem gis lu kenn gis ki nga xamante ni mu ngi def lu kenn deful vraiment yow kooku di nga ko topp donc ba tax ni mbokk internet ci ñoom itam ñu ngi topp Alaaji Thierno Moule Sow waaye itam topp ñu ko topp neen ndaxte xam-xam bi ko yàlla jagleel la donc mu nekk li nga xamante ni lu am solo la euh, moom la euh, tout le temps moom Alaaji Thierno Moule Sow dafay faral di lépp yonent bi la lépp yàlla suñu borom la ak y ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donc loolu nga ci ngaalam alaaji mu Moule Sow ndaxte moom dafa ne mënalul boppam dara ndaxte lépp ci yàlla la ko euh, delloowaat ak yonent bi sallallahu alayhi wa donc loolu dañ koy ñaanal guddal fan euh, te wér ndax euh, nekk na nit bi nga xamante ni am na solo ci askan wi am na solo ci société bi ndaxte internet bile daal dina koy confirmer donc mu nekk li nga xamante ni lu am solo la ba tey mbokki internet yi ñu daal di àddu itam demaat ci ah, beneen internet ku ci mel ni bëgg baax moom itam nee na Pape Sidi xanaa mënoo nax ah, Thierno Moule jox ko ah, somnifère mu naan eh, yéen kii dafa sonn yërëm leen ko nag eh, est-ce que gënul sonn patient yi sax yàlla na ko yàlla Euh, oyofal yan euh, oyofal euh, ci loolu nag itam mbokk internet yi nekk na li nga xamante ni ah, ay ay ay ay takkin la des fois ci ki nga xamante ni Alaaji Thierno Moule Sow waaye itam dañuy daal di dem ba yërëm ko ndaxte nekk na nit bi nga xamante ni day. xëy suba ba ngoon wala suba ba guddi daal di nekk ci jinne yi ak i dëmm yi donc mu nekk li nga xamante ni mission bu extraordinaire la mission bi nga xamante ni moom la ko yàlla jagleel waa itam nangu ko bu mat sëkk di ko prendre en main di ko def bu mu jeex takk bañu ci dara donc mu nekk li nga xamante lu am solo la mbokk internet yi ñoom itam daal di nañ koy souligner mm, ñu daal di addu demaat ci uh, beneen internet mbay ñu demaat ku ci mel ni Sophie ay dara moom itam nee na uh, tey moom uh, sama remerciement sogolon sogolon jaata laa koy jox ku sëy sëy bu rafet te sell am ku mel ni Thierno Moule Sow longue vie à toi Thierno Moule Sow donc foofu la ñuy daal di ndar képp ak sa émission lii di Actu Net mbokki internet yi. Euh, ñu daal di leen euh, nuyal euh, ki nga xamante ni moom itam moo nekk ci ginnaaw caméra bi moo di mbay moom mi nga xamante ni moom itam. macha allah massion spéciale ci liggéeyam xarañteem ci la TMS TV mbokki internet yi ñoo ngi daal di leen di jox dig daje ci yeneen i jotaay ci seen émission lii di liir commentaire.